Thiès alors tey ma am mbégte ñëw seet ki nga xamante ne mooy Fatou Diagne Diagne 45 ñu gën ko euh, ràññee ci Diagne 45 mu nekk benn jeune talent boo xam mi ngi fii Thiès euh, cité Ousmane Ngom ma am mbégte loolu dala ko ci biir Talent Thiès ginnaaw ba ma ko nii ma bàyyi ko ma ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñuy waa Talent Thiès. waaw merci beaucoup Khadija ci invitation bi ak seet si bi di ko rafetlu bu wér-wér. maa ngi nuyu la bi yëpp di télé bo xam dañ di wax donc merci beaucoup di nuyu waa Thiès yëpp ak sama koñ ci Ousmane Gom alors Je ma am mbégte dalal ko mu may exclusivité bi di ma Khadija yow lay exclusivité euh, uniquement on va parler de l'Afro Basket 2023 ma am mbégte lool am contentement am honneur ak ki nga ne 45 alors euh, ñu Diagne. tay ba ma doon wax kan moy personnalité wu jang yaa ngi may kan def moy jang 45 exactement. yaa ngi may def loolu xam te ni bëgguma ko def moy wax ci sama bop mhm. ma man la Fatou jang doomu Thiès doomu Cité Ousmane gom donc euh, man la wax ben xal boo xam tane ni bu mus a mhm. euh basket surtout sport bi jëlé ko ci sama frère Moustapha Diagne. donc bëggoon naa bëgg mës a bëgg a àggale li mu jot a commencé ci basket donc loolu mooy sama rêve ba pare li sama papa doon ci dëkk bi moom mës a bëgg a doon genre boobu ba romb ko donc chaque fois bëgg doon exemple ci xale wan leen yoon bi comme ni ma sama parent yi wanee yoon bi donc mun naa ni kooku mooy Fadiagne bi nga xam ne nii moom moo bëgg a doon un jour Fadiagne bu doon référence mu ngi boo xam ne dañ koy bàyyi xel. alors Fatou Diagne ban parcours la Fatou Diagne def. ban ban lan lan moo tax Fatou Diagne dugg ci sport bi rawatina basket bi qu'est-ce qui a motivé Fatou Diagne ba mu dugg ci milieu sport bi. loolu li ma motivé sama frère bi mu safaa Diagne ci la bokk ba ci Mbaye Sembène bi nekk ah. Mbaye Sembène ah. ci la bokk ndaxte ñoo en face suñu kër la dëkk donc dama leen daan gis ñuy sol maillot basket yi mm-hmm. mais maillot basket yi daf ma mosoon a neex jusque style bu ma neexoon la avant may xam basket bi. Mm-hmm. sama taay ak lépp dama mosoon a timide te pour génn sama timide fallait que sport rek laa foogoon ni moo ma mënoon a génn si loolu <laughs> moo tax ma utiliser ko mais li ma gën a motiver ci basket bi moom pour dugg mooy sama frère bi mhm. ndaxte moom am na chance su dem États-Unis njëkk dem États-Unis basket boo ñu waroon ko draft NBA mhm. mais ak ay blessure moo tax euh, àggalewu ko donc man nag ma ne dinaa ñëw man def différence mhm. fi mu yam man ma àggale fa mooy dem jouer ji professionnel fexe ñëw équipe nationale ba ñëpp bàyyi ma xel ci basket bi euh, pour moom loolu tax ma basket. alors est-ce que mën nga ñu wax tuuti rek euh, ci année yi nga xamante ne passé nga ko aux États-Unis mhm. avant ngay ñëw Espagne. Mhm. est que mën nga ñu euh, récapituler sa sa sa sa parcours bi nga xamante ne mhm. def nga ko États-Unis avant ngay ñëw avant ngay ñëw Espagne parce que yàgg nga yàgg nga yàgg nga États-Unis waaw États-Unis def naa fa euh, depuis deux mille quinze laa fa dem ba deux mille vingt et un su ma juumul. Mhm. deux mille deux mille quatorze deux mille vingt donc ci laa dem États-Unis benn école bi ñuy wax Gulf Coast State College. Mhm. moo ngi nekk euh, Florida. jiko la mooy deux premières années collège donc euh, falaa demoon benn coach bu baax bu tudd Ronnie Scovel yor ma fa. Mhm. jàngal ma fa basket ba. deux ans yi ma fa def am naa fa ay blessures doon naa fa capitaine joué naa xam nga yu bëri daal na ma fa surtout éducation bi tamit mais moom aidé na ma ba ci ñi ñu doon recruter ci collège boobu noonu ci mhm. toppi laa bokkoon. donc euh, am ay recrutement comme ay Kentucky Tennessee euh, pour du école yu bëri daal. Mhm. première division yi doon nañu recruter foofu. Mhm. ba mu mujjee choisir dem Purdue Université Purdue nag li tax ma choisir ko c'est pas juste pour basket. mais ma choisir ko ndax damaa mos a promettre sama papa que jàngi mi à chaque fois moom laay njëkk a teg. balaa basket bi donc loolu taxoon ma choisir dem Poundou fa laa def sama trois ans après ci ma amee sama bachelor en sociologie. après bi ma jógee foofu noonu ci laa demee Houston mooy année Covid bi da koy am. extra year bi ma dem Houston University ci laa defee sama master en ressources humaines. Mhm. Euh, fa après nag ci laay soog a génn. est-ce que ba nga euh, nga nekk meilleure joueuse ci biir ci bi tournoi bi. ma nekkee pour du sama dernière année mën naan ci laa njëkk a basket année complet ndaxte juste ak ay blessure mais boobu noonu mu euh, maa ngi doon noonu ci ñaari award yoo xam te ni gagné woon naa ko mm. mooy ci mos yoo xam te ne nii double double mooy dix point di rebound yoo mm. xam te ne nii man maa maa doon maa jël quatrième. Mm. ci seen ci Purdue bi mu am Purdue ba léegi. man maa fa def consécutif moo xam ne tegle quatre match ba cinq match pour am daabul daabul ba pare ñu ci média bi ñu élire ma leadership ma doon leader bi nga xam ni nii am naa award boobu ñaari yooyu laa xam ne moom yu ma ràññee la fa ci ci sama tournoi sama compétition pour du pour du lan moo tax transfert bi pourquoi nga jogee jógee États-Unis mm-hmm. euh, dem Espagne parce que Diagne bu ñu nëbb de ñëpp bëgg a dem États-Unis dëkk ñëpp États-Unis la ñuy wër <laughs> voilà question bu may bu may xaaral je pense que ñu bëri mhm. xamuñu transition bi ni mu demee. ok unis à part high school mooy mhm. boo demee high school mooy comme nga jugee euh, nu mu ko expliquer nga jugee primaire. dugg coach dugg sixième. Mhm. ba ba troisième mooy high school bi ñu koy waxee. donc boo demee ba am bac. collège nga mëna dem moy université bi ñi dem comme université Purdue après collège mhm. États-Unis amul professionnel euh, ki, euh, mëno dem professionnellement dem ñu lay fay ni mhm. NBA rek nga mën dugg donc bo dugg NBA fo nga génn dëkk bi wala nga dem liggéey donc lool moy ñaar option ay fa am soit dañ lay draft wala nga génn yow nga soit dem génn génn dëkk wala kon ma dem liggéey yoon <laughs> mais chance bi moy ni nga ni am nga fa diplôme bo xam ne mhm. un jour viendra di fa mëna duggat ndaxte seen diplôme nga am xam nañ la fa donc da ngay dem basket ci benn moment après yàlla bu dogalaatee nga dugg États-Unis am problème ci club boobu noonu. non même pas man moom yàlla def na moom fu ma dem rek coach yi dañ may daal beral loxo te xaw ma lu tax mais sant naa yàlla bu wér. ci loolu ku la <laughs> ah, moo fi nekk de. <laughs> ku ko tooñ <laughs> est-ce que est-ce que mën nañu revenir tuuti formation bi. waaw yan club la jaar. waaw yan coach si coach yi si ñu bëri. donc man moom ñëpp xamee nañu boo nee Fatou Diagne moom CNEPS la ñuy wax. Mhm. donc mais avant CNEPS doon naa dem lycée Malick Sy. fa laa daan fekk ay mbaaya César Soroxatu Dieng. Mhm. ay ñu bëri ay saaliw euh, saaliw bu bu ñu ci bëri falaale doon fekk ñoom ñoo doon jàngal basket après ci laa raconté ci laa gisante ki nga xam ne mooy Pa Cissé mhm. bu lycée Malick Sy moom moom commencé di ñu li ñu joué cinq cinq yooyu noonu mais boobu yooyu noonu yëpp commencé gu ma basket na dama doon wàcc dem foofu dem toog di seetaan ñuy ñëw des fois naa frol bal beeg yooyu noonu <laughs> donc euh, loolu la après ci la ma Pa Cissé nag jëlee ma ci coach Idrissa Sissoko Idrissa Sissoko bu SNEIPS boobu site site girls amagul woon donc c'est Excellence là en tant que débutante trois mois après coach dit entraînement, je suis mon senior donc non la sama basket commencé même pas un an deuxième année bi un pipi. Ah, jamais confirmé minimum cadet cadet junior senior. un la ko di wax. <laughs> loolu moo <laughs> <laughs> daal moo doon sama sama sama daal donc moo tax fin d'année bi bi set site ex CNEPS euh, yéegee tournoi monté xaw ma ci laay ma surclassé pour ma dem ma rejoindre cadet ti ñu dem ñu dem kii euh, senior euh, ñu gis Fatou Diagne bi nga xamante ne en 2021 mhm. Afro Basket mhm. ak Fatou Diagne bi nga xamante ne moo demoon Kigali. Mhm. du même Fatou Diagne boobu. waaw parce que benn instant Fatou Diagne bi nekkoon Dakar Arena. Mhm. en 2019. Fatou Diagne boobu dañu ñëw Fatou Diagne dafa timide basket. Mhm. Sénégalais ñoo ko wax. Mhm. ñu ne Fatou Diagne dafa timide basket. Eh, ñu ne Fatou Diagne dafa yéex ci ay réaction ñu ne Fatou Diagne dafa xaw a jël poids. tey Fatou Diagne ñëw ak beneen xar kanam. biñ ko xamee woon. ban sensation la la def. ci ñaari différence yi nga bëgg ma wax ci. ok 2019 c'était différent mooy nekk nii y avait trop de pression moy nek di sa rêve ñun sénégalais yépp ñi sport mooy dugg équipe nationale té ma ñëw fekk fa ay rôle modèle yoo ni Astra Waré ay Mamadi Si mm-hmm. Kumba Sar ma ñëw doon ci bële yi mm-hmm. donc ñi ci dib ñi soog a débuté mais nga ñëw ñu wané la né yow doo bële té nga wara bok ci meilleur joueur donc lool non rek pression la won ci man mm-hmm. pour ma wané sama bop donc ba ci bu ngeen seetloo ba ci compétition yi. Mhm. demi finale laay soog a yeewu. donc mais loolu lépp expérience bu ma jàngale si ñoom mooy ne que mhm. ni maa ngi fàttali ko Astraoré di ma wax naan ma euh, ci début d'entraînement naan ma Fadiagne. Mhm. afro basket du du États-Unis ah. du compétition États-Unis du compétition Sénégal c'est différent te marché bu nekk dafa am loo si jàng donc loolu laa si jàng moo xam te ne nii bi may bi ma paree 2019 xamna naa lakk yi nga xam te ni yóbbu woon ko 2019 ma jëm ko rectifier progresser ci di bàyyi xel ni dina ñëwaat ik nationale donc lolu ce sont ces mêmes critiques yoo xamante ne ñoo la permettre nga jël ko positivement nag bien sûr nga jël ko positivement yoy peut être critiques yoy nañu ñoo la mm-hmm. jappalé ba tay atu Diagne mu ñëwaat en force bien sûr mais critique yoy moom mo lay avancé loo mm-hmm. ndaxte buggoo kenn chaque jour ñu lay wax naan la c'est bien c'est bien bu dé c'est mm-hmm. bien do mu se progresser donc le fait que ñu lay wax ne la ni jeunes yi war a yor équipe nationale ci nga bokk. Mhm. tax na nga war a gën a dem liggéeyuwaat chaque année nga ñëwee ci beneen fasin boo xamante ne nii di nga mën a aider équipe bi mujj. ñu wax tuuti ci euh, li nga xamante ne mooy début début début début euh, afro basket bi Kigali. Mhm. ñu gis Sénégal bi nga xam ne mënoo éviter mënoo éviter question yooyu. damay tooñ. loolu mënu cee bañ parce que sénégalais dañuy xaar loolu. <laughs> man dama doon euh, exclusivité bi am kenn koo xamante ne. Mhm. moo jógee Kigali ñëw. Mhm. yow nga may ma exclusivité boobu mais faa ma wane sama bopp jaayu tuuti. <laughs> yaa génn ci yi nga nekk. <laughs> damay tooñ rek parce que dañuy xool. Uh-huh. Fatou Diagne ñun préparé wu nañu. waaw. am nañu peut être mëna wax ni un mois avant ñuy programmer Coupe d'afrique un mois dugg ngeen regroupement. Mm-hmm. yéen a ngi mëna wax fédération def na moyen yépp pour ngeen nek mm-hmm. à l'aise quoi à l'aise waaw mm-hmm. léegi ngeen dem. voilà débuter ak ak ñaari défaite. man sincèrement je croyais en vous parce que je suis sportif. deug la te amna luma gëm. deug la te euh mëna wax ni kenn ku nek so wété di nga xam kan moy sa yaay. deug la donc ci lolu en tant que sportif. <laughs> euh man j'étais positif. xamuñu basket. Mhm. ñi nga xamante ne amuñu amuru basket. Mhm. dañuy dégg Sénégal rek téep Sénégal duñu eh équipe bi baaxul <laughs> équipe bi naan alors que xamuñu exactement la moo nekk ci ginnaaw loolu. ci defet yooyu noonu. Mhm. ban euh, réaction ngeen am. bañ leen dóoree. ak suñu défaite contre Mali. mu leer ma ni mu mosuñoo dóor ñu. yéen a ngeen def Mali mosuñoo dóor ci. jàppal ni ngeen ko jëlee rek. nu ngeen ko sentir rek. lu ko raw lañ ko sentiré waaw bu len metté rek ñun yëg nañ ko mais li may wax ni compétition la am nga da nga mën nga défaru ba pare yaakaar ne ya ci nek fekk ni sa adversaire la indi yow pare wo ci donc ñun li ma mën wax ci groupe bi moy nek ni am nañ groupe bu extraordinaire moy nek ni entente bi ñu am suñu biir ba mëna tok ti di waxtaan mhm. di yedante suñu biir gisuma ko ci équipe yu bëri te ba ci coach yi sax wax nañ ko moo nekk ni affinité bi ñu am suñu biir pare woon nañ physiquement pare woon nañ lépp mais nee naa compétition moo demee noonu te premier marché bi Ouganda jàng nañ ci lu bëri. ndax seen zone boobu ñu ñu teg problème la woon pour ñu pour ñu tas ko. xam nga zone bi premier quart zone la teg. même zone ànd afro basket bi zone la joué changé wu ci dara ñoom zone boobu dañ koo liggéey mais ñun nag. boobu xamuñu nan lañ ñuy tasee zone bi. Mhm. mais loolu lépp jàng nañ ko ndaxte liñ ko jàngee noonu lañ ñëwee ci suñu deuxième match contre Mali bi. Mhm. Mali tamit indi beneen beneen basket boo xam ne nii xaaruñu ko woon. basket voilà bu intense. moo nekk ni boobu xaaruñu ko woon. xaar nañ ko mais pas niñ ko ni ñu ni ñu ni ñu songee. xam nga ndaxte boo seetluwee de premiers quart-temps ñun ñoo mu ne woon. mais mooy lii sportif moo nekk ne doo mës a bàyyi. am na benn instant sax gars yi nee nañu est-ce que gars yi bi moo bëri. mais est-ce que yéen ba ngeen duggee regroupement ba ngeen doon entraîné yéen a ngi doon ut ay match amicaux di ko nañu ak euh, garçon bopp yi suma juumul ak yeneen garçon mhm. parce que dañoo woon dem États-Unis demuñu états donc loolu noonu lépp ci kii la bokk daal match amicaux yi ñu woon a joué. Mhm. joué nañu mais du ma wax loolu yëpp mooy excuse. Mhm. moo nekk ni amuñu match amicaux wala mais li may wax moo nekk mentalement ni ñu jugaatee. man mhm. foofu laay wax chaque fois mën nga commencer nii mais arrivé bi moo am importance mhm. ci li may wax. te arrivé bi euh, duñu duñu ne mer nañu sax. Mhm. mais li yàlla mooy dogal. dëgg la l'objectif en ñu dem ba final. te dem nañu ba final. xëy na yàlla moo jox euh, nigériens yi. ndam mais yow ñaari défaite jaay. final arena Nigéria moo ko <laughs> ñu dem kii Nigéria jëlati ko. waaw mais c'est extra. c'est c'est mais li may wax ne que ne ñun Nigériens ni peut être que xam nañ leen ndaxte ñenn ñu ci bëri 2010 ci bëri maa ñoom ñoo bokkoon fi ñu doon basketté. Mm-hmm. de même que ñenn ñi fii ñoo ñoo ñoo bokkoon club. Espagne mais des fois du ma wax moom défaite buy ñëwee buñ la songee rek nga xam ne song nañ donc te yow sportif nga xam nga bu baax li may wax. mën nga pare pare. Mm-hmm. waaye am na foo xam ne bu ñu la fa jaaree da ngay perte muy noonu te mais dañ ciy jàng lu bëri moo nekk ne chaque année ñii gën a pare na day li ñuy wax ne moom fi ñu toll nii Nigéria moom rek lañ bëgg a dóor mhm. ku nekk suñu xol yi loolu rek la nekk mu leer nañu kon kon kenn ku nekk looy entre rek waaw leer na ñu wax ci victoire bi nga xamante ne mhm. Diagne 45 mu ndax mhm. moo ñu ko jox mooy suñu match contre Égypte nga wone beneen Fatou Diagne ñu gis Pape Diagne bu ànd ak fuga mhm. ful ak fayda mhm. ragalul dara mhm. lu taxaw ci kanamam da koy jël jël na quatorze rebond su ma juum mu nekk mu nekk MVP Diagne boobu noonu ba nga fippoo nga ni moom damay écraser ñëpp moo indi loolu nga xam nga da nga nekkoon ci benn finish line boo xam ne nii soit da ngay gañe baa nga ñibbi ah, te gàcce googu noonu xalaatuñu ko woon ñibbi see Sénégal am nañu ko doon xaar donc ah. nag mais li ñu xam mooy amoon nañ groupe. Mhm. moo nekk ni groupe boo xam ne ñëpp dañuy dégloonte te xamoon nañ ñaari marché yi suñu erreur yi. moo doonoon défense bi mais surtout suñu attaque yi bal bi du egg ci biir. relation yi amuñ woon. donc mais waxtaan nañ suñu biir ñu changé attaque bi tactiquement ci côté staff coaching bi ak ci joueurs yi. Mhm. donc ñu gën a waxtaan. kii indi apportam keneen wax keneen wax. Mhm. bañu xam ni bal bi foog ñu foog ñu tourné ko. donc ñun tam pivot yi. comme li ma wax coach Khady ñëw wax ak ñun. ñun mhm. ñu wax ni ko ok lii lañ dinañ la assurer lii ak lii. ku dugg keneen def lii. bien que maa doonoon leader bi ci pivot yi. donc fallait ko man ma am lu ma wane. Mhm. mais seen aide nate bu bu ma Kumba Sarr paas woon bali. du ma ko mhm. dugal. bu may siyaara joxul woon yenn bali du ma ko dugal. te bu ma ribaandul woon gars yi may ma ma bokk saa ba jër du yooyu yëpp du am mooy ne collectif lañ def. donc mais juste que kenn ku nekk dafa jël euh, leadership am. imposé ni match bobu dañ koy gagné lolo tax ñu am victoire bobu le match contre Mali. Mhm. retour bi. Mhm. lan ngeen tek en dehors avant ngeen di ñew ci ci tanner bi lan ngeen tek ngeen seen biir pour wax ni que tey moom. Mhm. Mali dootu ñu door wa xam nga équipe bu mag. boko ko c'est difficile nga dóoraat ko. lolo am voilà ba xam nga ni match bobu parier na ci. wa ki may parier ni ngi lay dégg. <laughs> donc lolo moy problème moo nekk ni. ñoom euh, nit ñu doon xaaree mais dañ doon bàyyi xel. Mhm. na xam nañ ni eh, bañ ñuy dóor. Mhm. xam nañ ni mënuñu. donc mooy loolu mooy match loolu moo garaaw ci compétition. mooy ne que tase taseeg équipe ñaari yoon bu ko dóor ñaari yoon loolu loolu yombul donc ñun fallait que ñu changer suñu stratégie. Mhm. xam nañ fan lañ faussé donc dañ ko rectifier. léegi Mali nag changé wul stratégie loolu nag moo ñu may avantage bi te ñëpp dañoo pare woon ni c'est impossible Mali dóoraat ñu gis tamit beneen CRA boo xamante ne euh, non explosif. <laughs> man mii di wax ak yow sax xamee ko man mii di wax ak yow sax xamee ma ko woon CRA ñëwaat. <laughs> yéen noonu moom. waaw moom dafa mel ni. Hmm. Sénégal la yoroo màggee fi door dem <laughs> ah mais. réaction boobu ko. non man dama daal énergie bi ma doon am lu bëri ci moom lay jóge ndaxte que ni muy joué da ngay am envie jouer te loolu mooy genre kii bu ngay soxla ci équipe. elle vous da ngay xam ni leader la boo xam te nii mm-hmm. dafa bëgg gars yi gagné c'est pas li muy scoré. Mm-hmm. wala mais dafa bëgg. Mm-hmm. gars yi dañoo amoon du sax juste moom mais gis ko ba ci fàjjee dañoo am ay woon ay menaces yoo xam te ne nii dañuy. ay kii da maître de jeu lañ. Fatou Diagne lay Fatou Diagne lay sànni. voilà benn te match bi jeexagul. donc moom leader la boo xam ne nii. Mm-hmm. exceptionnel. moo ñu aidé si lu bëri côté vidéo yeeg xam nga ñu mm-hmm. comprendre ñi ñuy adversaires yi. Siara indi apportam ci attaque yi. Mm-hmm. nuñ koy placé xam man fan laa soxlawee bali. fan la soxlawee bali tosh aya donc li ma kii de groupe la woon daal benn liggéey de groupe boo xam te nii nii extraordinaire mais li muy ah, li nga li nga ah, li nga mën mhm. te loolu lañ xam ndaxte moom mooy gaynde boo xamante ni nii moment bi nga ko soxla boo ko fa dugalee moo la différence. te moment bi nga ko indi foofu lañ a soxla. exactement ndax critique bari ah, mais Yacine kii la joueur professionnel la. gaynde la voilà ñun moom li may wax critique yi moom du ñàkk. mais kuy voilà incha allah kuy avancer rek moom la ñuy critiquer. Mhm. te critique yooyu boo ko jëlee positivement da nga ci génn. moom moom moom nga jël yow mu ngi noonu man moom damay wax lu nit wax rek damaa koy gis ndax ndaxte dafa may suivre moo tax mu muy muy critiquer donc. taw fi yàlla ñu wax tuuti li nga xamante ne Ciara moom la publier jàpp si rek ngir la wax ci tuuti rek Ciara nee na dama lay du wax lépp li Ciara ndax li wax dafa bëri dama lay wax li gën a intéressant <laughs> nee na. la différence entre les coachs. c'est hmm. l'entraîneur. Mm-hmm. ci compétition. Mm. finalu compétition. mais nag c'est pas normal nga nekk finalu compétition. Mm. Fatou Diagne sa coach. troisième quart-temps nga war a jëlee score. Mm. match boo xam ne daaxante la troisième quart-temps foofu la ñëw foofu la grand jeu bi di génne. waaw quatrième quart-temps nga neutraliser mm-hmm. équipe. daxaa ngay toog croiser les bras bàyyi ñu ay ay ay wax de. man kay maa ko yow maa ko de man maa ko wax. <laughs> non mais xam nga. réalité yi ci biir terrain ak ci biir vestiaire yi moom. Mhm. loolu équipe bi la concerné ñun staff bi ñun la. Mhm. mais ñun en tant que joueur li ñu concerné mooy ñu jouer match bi dañu ñëw dugg si terrain bi donc ay professionnels lañ. Mhm. yooyu état d'âme yooyu ñun duñ ci duñ ci wax lu bëri ndaxte concerné wuñu mais li Ciara wax noonu loolu mentalité am la ndaxte américaine la culture yi bokkul. donc moom li muy sentir. moom loolu lay wax. comparé ñun ñi nga xam te ne ni dama respect di bàyyi mais éducation am na éducation boo xam te ne ni mhm. moom loolu lañ ko jàngal c'est différent ça ne veut pas dire que amul éducation wala kii amul yëpp <laughs> moom laa laa rek mooy ni que culture yi moo moo différent mais mhm. boo seetluwee nii même pas quatre de temps après jëndi ko ndaxte jusque du respect xam na ne suñ culture bokkul xam na ni dafa respecté équipe bi respecté mm-hmm. staff bi donc mooy wane nii ni mu ni mu ñëwee rek bokk ci équipe bi mm-hmm. ñëw rek doon sénégalaise te bu ñëw rek nga gagné mais jusque réaction boo xam te ni la mm-hmm. moom la sentir te loolu kenn du ko ci jugé ah, ñu wax ci sargal bi parce que say waa ko dañ laa sargal jaañ ñu ne dañoo kontaan ci seen lion <laughs> ndax defal nga leen lu nekk nag wax nañ ko. mi ngi donc waaw li may wax tawféex rek sant yàlla si loolu na te koñ bi moom mënoon nañoo sargal ku nekk. ba mhm. mu des man donc mais. xam ah, nga xeeb li nga def. <laughs> donc mais loolu rek dama ci sant yàlla di wax ni comme que genre yooyu mooy wane ni yaa ngi si yoon bi. donc danga war a gën a gën a gën a gën a góorlu ndaxte koñ boo xam te ne ni football rek lañ xam te c'était Ousmane Ngom bu ñu nee tund bi. Mhm. football rek lañ xam. mais nga tax ñëpp di xale yi di commencé di bondé bal bi di basket donc loolu moom beneen affaire la mm-hmm. te di leen ci na ndaxte loolu dañoo wane seen baax rek ndax bu leen neexoon ñu ni Fadja new fi vacances lay ñëw tëju ci këram wala genre noonu mais defuñu ko chaque jour ñu ngi communiquer ak man di ñëw te sargal bi teguma leen ko te mi ngi noonu daal aw ma seen fay aw ma seen fay. parlons de divertissement. Pape nga togg. si <laughs> ay loolu. <laughs> bilaay boo xam ne loolu fii. loolu est-ce que dama bàyyi ke am kumba kumba ne fu nekkoon mu toll ci non si waaw. mun naa toog comme ni ñëpp di toogee loo ngeen foog ne sportif bi la ñuy def comme li li jigéen di doon ngeen foog ni jigéen ñi duñ sportif bi jigéen duñ toog yow xam nga danga toog. lan man man de wax dëgg yàlla naa ah. plan yëpp. man sax man man. Ah. yow yow Diagne ma maa la posé question doo toog. <laughs> Ah, dama laaj non mën naa toog mën naa toog. maafe moom mooy sama favori ndax man maafe laa man dëgg dëgg laa bëgg yàlla def na ni moom maafe cere baase moom. samay samay samay samay plat lañ loolu moom c'est sûr. Fatou déglu musique. Hmm. kan mooy chanteur préféré wu Fatou. nag old laa moo tax ñi may wax yaay maam ak lu ne ma koy dégg <laughs> man nag buñ nee musique moom mën naa ne xasida yi laay gën a déglu ci côté boobu. mais buñ nee chanteur préféré hmm. mën naa de ci Youssou maa jigéen. waaye duma fàtte mukk nag sama suñu waykat bi jeeba ah. moom ah. moom ku ñuy ah. déglu la bu baax a baax suñu Cees suñuy Cees waa suñu Cees waa boobu ban ban valeur humaine la Fatou mhm. gën a naw ci nit valeur humaine mooy nit ku wàcc boppam maa seeg suuf si kooku moom lu ne mën nga koo nit mooy li may wër moom suufe parce que aduna ak lo mënta am rek. su lo ko woyof may rey mënu la ko may. mukk mënta nek amal amal daraja bu la neex. Ya. Hmm. bo amé no mel ak nit ñi rek. Hmm. te respecté woon nit rek. deug la lenen lenen loo def rek. du saf nit ñi. du safe àdduna bi day jeex. motax nga wara a sa bop ci suuf ci ndax lu yàgg yàgg ci suuf ci nga jëm. dafa leer leçon de vie. ñu wax ci projet wu Fatou Diagne. parce que. am na benn benn benn mouvement boo xamante ne Diagne teg na ko. Mhm. pour essayer euh, juste. Mhm. pour essayer de promouvoir les jigéen. Mhm. ak les xale. parce que mon projet bi noonu la ko tuddee jigéen ak xale. Hein? est-ce que Diagne mën nañu wax tuuti ci projet boobu noonu. waaw. ndaxte boo nee Women Youth rek nit ñi dañuy xalaat ni jigéen ñi rek ak xale yi la. mais li may may wax moo ni ni jigéen mooy jur xale mooy màgg. te buñ ne xale góor si dañ bokk ñooy màgg yor réew loo tax ñu defee ko noonu donc bu ma leen benn fondation la boo xam ne nii États-Unis siège bi états nekk fa lañ amee euh, papier yëpp fa donc États-Unis la la la siège bi nekk mais dañoo nekk en collaboration pour indi ko Sénégal nga xamante ne nii dañuy am fii siège bu ñi ngi nekk ci kayit yi pour mu doon ONG fii donc suñu objectif mooy ne que nii li nga xamante ni dons yi nga xamante ne nii mën nañ gis fondation yi di ko def di joxe même dons yi chaque année ci ci daara yi ci famille yeeg yooyu noonu ñun dañuy ñëw ci beneen domaine mooy ni que ni ñi nga xam ne amuñu liggéey ñu dimbali leen ñu am liggéey. xale yi nga xam ne dañoo nekk ay taalibe yi. Mm-hmm. di dem di di yalwaan ñu fexe xool nan la ñuy wàññee loolu. mooy ni que nii ñu fexe ñu doon am ay métier. Mm-hmm. ci côté menuiserie bi comme bu dee dañoo ñëw daara boo xam ne ñoom dañ koo moom. Mm-hmm. ñu fexe xool nan la ñuy def foofu ñu bay ci biir affaire bi wala defar ay poulailler foofu ñu jaay ko. am revenu du mën dundal sen bopp fofu dimbali nak sen yenen morom ci éducation même chose ñi ñëwé donc dañuy fexé insérer technologie bi mais en même temps utiliser plantes vertes ñu xam te dañuy am ay garab yu ñuy jëmbat ci jardin mhm. yi di leen wax ni mais en même temps xale yooyu dañu di suivre sen éducation. comme ay affaire de maraîchage. affaire de maraîchage donc loolu lañuy def mooy ni que autour de agriculture lay doon. Mhm. en même temps mais ci jigéen ñi tamit femmes femmes yu bari bari nañ ñoo xam ne ni ñi ngi nekk ci côté reproduction yi transformation yi donc moo tax ñu doon joxe ay don au machine pour ñooñu am ñi ko jox fi ne ñoo ngi nekk jàmba gën mm. ñooñu fi ne noonu li ñu bëgg ñi ngi installé benn bërëb boo xam ne ni mm. pour teg fa machine yi en même temps di ci machine ñu ko utiliser mm. mais en même temps dañuy jël machine yi di ko pour koñ bi ñëw fa di fa di fa di fa walee xam nga loolu revenu bi ñu am la ah, léegi ñoom noonu en même temps dafa am suñ président bi nga xam te ni mooy Talla Diop mm. day dem di leen euh, defar ay cours de forcement nan la ñuy yoree xaalis bi. nan ngay nan ngay équilibrer lii ak lii lan nga soxla ci dugub. Mm-hmm. Ah, genre entrepreneuriat entrepreneuriat la ñu defar donc autonomisation moom mooy mm-hmm. mooy objectifu fondation bi. donc moo tax dañuy bëgg képp koo xam te ne nii yaakaar nga ne war nga see mën a jàpp ndaxte lépp la ñuy def volontairement ñi ci bokk ñëpp. volontairement lañ jógee. mais Talent ngi ci bi non si si loo xamante ne Talent na ko apporter. Mm-hmm. ci ci projet boobu mm-hmm. noonu. yow wax ma rek. incha allah incha allah sama sœur nga. c'est sûr waaw sama sama référence nga. c'est sûr sunu lion nga. donc il nga woote rek. Khadija mm-hmm. ah, Tala mouvement bi la lépp loo xamante ne mën nañ ko. non eh, incha allah loolu moom dinañ ko dinañ ci gën a waxtaan ma gën laa tegal projet bi. mais loolu daal objectif mooy ne que ñu. fexe gars yi chômage bi ñu wàññi ko. Mhm. loolu lañ bëgg a def mooy dimbalante suñu biir te pas ñu joxe xaalis mais projet boo am ñu jéem a xool nan lañ lay boole ko la jàppale wala ñu jàppale la yow nga ñëw jàppale keneen. ñoom décorer leen mais en même temps dama leen di suivre ci côté éducation ñu am ay mentor. donc noonu lay demee moo tax camp di mën a am xam chaque année dañuy mhm. jël MVP yi wala meilleur joueur yi suivre leen ci éducation. ku ci am chance dem Europe mhm. yàlla bu ko dogalee def ko bu dee da ngaa toog fii ibbi sa entreprise ko.

moom mu jël initiative te bu ko neexoon mu ne du ko def. Hmm. parce que les jeunes. bu ko hmm. neexoon mu ne du ko def. Hmm. am na xaalisam. mi ngi sant yàlla. bu ko neexee mu ne man sama famille laa lijjanti yi ak sama dëkkandoo li keneen ku dul ñoom lijjanti ma mais noonu mi ngi naan man jeunesse bi laay gëstu. xale jigéen ñi laay xool. famille laay xool. te ci kon rien pour loolu rek. Euh, il mérite. il mérite vraiment que ñu que ñu remercier ko ci loolu que ñu encourager ko encore une fois loo xamante ne mhm. soxla na ko. Mhm. Euh, ci projet boobu noonu moo ko mhm. xam. yal na ko yàlla defal. et et mi ngi ci biir. di remercier tamit Ousmane Ndim. Ndim euh, waaw Ndim le grand Ndim. le grand Ndim waaw <laughs> nuyu. le fou du village waaw maa ngi koy nuyu kooku kooku moom kàngam kàngamu. basket kooku moom beneen nit la. keroog keroog ba ma demee këram. ñuy ñuy ñuy def euh, interview bi. dama koy xool ma koy xool ko ma xool ma ni kii. mbëggeel bi mu mbëggeel bi kii mu ngi noonu. du ko tey moo tax naan ko moo tax ñu village. du du par hasard moo tax ñu koy wax. te amuram moo moo doy waar muy noonu. alors Fatou ñu nekk en terme. ci suñu émission. Mm-hmm. message. ban mm-hmm. message ngay lancer les jeunes. Mm-hmm. dëkk bi metti na. gars yi ngi jël géej bi di dem. ñu ngi jël gaal bi di dem. mu metti lool. Mhm. kenn ku nekk bëgg a tëral ndey bëgg tëral baay. Mhm. mu leer na li ñuy seen bakkan bi ñuy jël di ko mhm. tayle ci live bi nii. rien que pour seen parents. Euh, ban message ngay lancer ñi nga xamante ne ñooy yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi jël euh, gaal bi. pour euh, uti ji bitim réew. waaw foofu moom li may wax mooy ni que ni li may wax li may faral di wax ak jeunesse bi yëpp. mooy gëm yàlla. mooy avant tout. te suñu borom moy maye te xagn hmm donc lool mom lu wax la moy nek ni ku nekk na xam lan moy objectif lim bëgg waye ñun suñ problème sénégal limay gis moy nek ni da ngay gis mor sa morom di dem nga ñé ko nga bëgg am lim am te bokko len yoon donc lool la chaque fois moy nek yow li nga nekk nekk ci te nga gëm ko waye yow xam nga ndax li mën nga ko wala mëno ko da mm-hmm. yàlla du jël ben porte rek tejj ko wala mu jël ben porte ne la fi la buntu yu bari la la ibbil il faut oser premièrement. man na dama am fit. yow gisoo ni man dama am fit. amoo fit naa sax amoo fit naa sport. waaw sport. waaw loo loo ma gis may def. Eh? ah eh, journaliste moo ma jaaxal ci boppam. waaw kay. muy noonu. kon eh, man du ma exemple. jërëjëf la muy noonu léegi xam nga loolu affaire yi mooy ni que ni dañoo tàmm chaque fois nga ñëw am bac dem jàng lii. Mhm. wala may def sport ne parce que rek laay def. buntu boobu rek nga bëgg mu ubbeeku. Mhm. mais yàlla bu ne du ubbeeku mënoo si dara. donc il faut nga am ay chemin différent pour mun see génn. ay buntu ay ay buntu kaña quoi. voilà mu ngi noonu yow daal sobar rek ay buntu kaña ay buntu kaña. <laughs> sobar te te yàlla mu ngi eh, noonu. Eh, Diagne kontaan naa encore une fois. Mm-hmm. nga jox ma honneur bu toll ne. non ma ñuy waxtaan ak li nga xamante ne. Euh, ci personnage yu Diagne 45 la ma bàyyi la nga remercier mm-hmm. les jeunes téléspectateurs ñi nga xamante ne ñu ngi ci Talent Thiès bi mm-hmm. ak les jeunes téléspectateurs ñu ngi ñuy suivre à travers nos plateformes digitales waaw di di la remercier waat encore ci invitation bi rafetlu naa ko bu wér mi noonu donc yow moom loo ma loo ma ñaan rek mënuma la ko bañ a bañ a donc <laughs> donc di remercier talent Thiès again di wax ni merci beaucoup di remercier waa Thiès di remercier waa Pir waa Kër Mousso mais duma bàyyi waa tund gi euh, Congo di leen remercier bu wér wér te di wax ni xale yi ñu gën a gëm suñu bopp di di xam ni lépp lu ñu gëm rek mën naa nekk te loolu mooy loo xam ne dama koy lancé bu ñu ragal a dugg ci benn benn benn domaine. Mm-hmm. lépp loo xam ni nii lu baax la te seen waajur nangu nañ ko. Mm-hmm. nañ ci dugg te lu ñuy def rek bu ñu ko nëbb seen waajur. loolu rek laa amoon ma si wax mooy respect bi discipline bi te gëm yàlla. te gëm yàlla mu nekk mm-hmm. lu raar ci jamono ji gëm yàlla. dëgg. ñaawteef yi bari na. <laughs> te laajte gi bari na sa laajte gi bari na ah daa jot ngeen de gisoo ko yow. non dëgg la mais xam nga loolu rek mooy am jot mooy waral loolu mais bu dee da nga am yow nga xam ne yow sa temps bi comme li may def ci fondation bi. Mhm. yow li ngay def ci journaliste boo basketul yaa ngi bind. donc loolu noonu yëpp boo amee temps boobu doo am temps. wu secondaire damay bind sax ba Iba ma naa ma li ngay bind dafa bari sa question bi ko. waaw bii doon nag loolu la rek mais loolu laay wax daal mooy ne que ni ñu gën a concentré woon ndaxte yeneen dëkk yëpp loolu la ñu devancé. mooy ne que nii duñu toog heure bu ñu toogee ñu ngi seetaan télé topp kii mais nañ bàyyi xel ci suñu avenir personnellement ni xam ne âge bi day dem. âge bi day dem et le temps passe vite. bien sûr année bii nii nii. jékki-jékki rek léegi ñu ne ñu ngi ci 2024. gis nga euh, ma koy remercier mu nekkoon euh, Fatou Diagne. l' international Diagne 45. ma am mbégte lool jàkkaarloo ak moom ci biir Talenties mu wax ma li nga xamante ni dund na ko ci biir Afrobasket mu wax ma boppam ñu ko xamul woon sax xam nañ ko tey jii nii à travers Talenties. rien que pour ça maa ngi lay remercier encore une fois di la jaajëfal di la ñaanal lépp loo xamante ne bëgg nga ko euh, ci afro basket bi di ñëw wala ci mhm. say projet wu bopp ah à l'avenir yaa ko xam yanal ko yàlla defal te jàmm sonalo lu bari ndax borom jàmm nga boroom baax nga nii ko gisee nii nii la mel Diagne ñëw na stade fekk may entraîner <laughs> ah mu ne ma booy yow doo pivot la moo tax ngay sonal sa bopp di naan da ngay jouer pivot yow soog nga de ma ne ko mais mënu ci lu bari dama bëggoon a xam lan mooy coonay pivot. <laughs> am nga ko dë xam naa ko ah, ndax bu ma duggee bu ma duggee ci bi dinañ ma def loo xamante ne man damay <laughs> dama la sañee sax sax di waxati. mais noonu kon jeex na tàkk nga xam ne jouer pivot metti na mu ne ma booy bul jouer pivot normalement yow waroo jouer pivot. ailier nga waroon a jouer wala un. vidéo yooyu mi ngeeg man. ce sont des vidéos yi nga xamante ne partagé na ko ak man. yow da nga koy dugalaale ci vidéo yi. non yow yooyu pour man la da nga ko ci terrain mooy entraîné nañu fii nee naa la yëri laa sax. baax na kon baax na si yi nga di ko jaajëfal mu kontaan ma kontaan lool jàkkaarloo ak moom. Mm. Euh, di remercier l'infatigable Ibrahima. Euh, mu àndoon ak man ñooy samay technicien tey Khadija dafa ñëw sama turandoo la. Mhm. nee naa ko léegi fu may demati ñooy ànd biir Tranchées da ngaa bokk. <laughs> loolu tax la ah? waaw. gisoo ko nii maam moom équipe la. équipe la est-ce que du ma dàq sax Ibrahima man jël ko ah waaw bu ma menacé. bu ma encore une fois di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen mhm. jeune talent ak beneen talent Thiès jaa jëf.